bu Thierno Moussa saw dëkk euh, Bayax euh, ci région de Thiès bokk ci commune bu Diender di fa euh, responsable politique mën nga wax aussi notable walla nga wax un tradipraticien looñ ci présenté tamit ñëpp dinañ xam ne ki ngay wax doomu Diender la ku ñu xàmmee ci Diender wala kooku mooy Thierno Moussa Sow. Mhm. am na ay xew njàngat bu simple euh, damay gis ne rek euh, ñi fay xëccoo dafa mel ne dañu fàtte ne askan bi moom moo leen fa teg ñu fàtte ne aussi bu fekkonte ne togg la ñu ngi toll ci lekk bay raxasu bon su dee askan bi soxal na leen na war nañu bàyyi ay affaire u intérêt ñu won sénégalais ni seen liggéey du nekk di xuloo xëccoo kuy jiite ak ku dul jiite parce que loolu wat medd la rek mën nga cee jëlee xet gu naqari ak wax ju naqari waaye doo ci jëlee lu rafet te loolu rafet lu ma ko daal politique. Mhm. yu bëree bëri. Mhm. mais gis nañ ne ndaje mhm. très bien fekkee ma si boolee maa ngi nuyu sama xarit yi nga xamante ne ñoom laa fa nekk ndawoon euh, di nuyu Youssou sama xarit euh, sunu mag la d'abord euh, fekkee ma si bool politique la woon dañuy ñëwoon pour soutenir Youssou Ndour ñu tollu jamono yoo xamante ne nag euh, gis-gis yi doonatul doon benn santiruma woon Ibrahima en tant que euh, responsable politique parce que réalisation yi bokkul woon dara bokkul Youssou aussi waxoon na ne mënul jàppale ku dul président de la république aussi c'est très bien jege woon nañ ko mais amul woon information politique yi mu war a am ci ñun sus xëy na loolu amoon na yéex a waxtaan am donc euh, ma demal sama bopp taxaw mais signifiwul signification bi mooy euh, nekkatuma responsable fekkee ma si boole. loolu aussi ci choix Youssou Ndour la moom moo jëloon responsabilité am ci biir campagne bi dénk ko keneen euh, ñu koy ñaanal. kooku mu ko dénk sunu frère boobu yàlla jàppale ko ci ba mu mën a def ay ay résultats Mm-hmm. léegi nag euh, waaw jamono ji nekkaguma fenn maa ngi gis euh, euh, waa maa ngi gis Malick gàkku maa ngi gis waa kër Ablaye Balte suma xarit maa ngi leen gis mais balaa nga mën a wax ne dëkk nga fenn parti da ngay ñëw bokk ci essence su parti bi xam sartu parti bi d'abord ngeen teg. nga xam fan nga féete mais mënoo nekk rek euh, comme ni ñu koy waxee mm, parti bi soxla na la mu ñëw rek soxla na la yabal benn nit kooku wan la ne soxla na la wax jooju du tax euh, man may tàbbiwaat ci loxoy kenn parce que bëgguma tamit di jóge comme ni ma jógee fekkee ma si boole bugguma loolu daal. Mhm. Ah, loo na soxla na ko foog naa ne su ko mënul kenn du ko mën ci APR moom lum ci mënul kenn du ko ci man parce que li tax mooy am na yar bi am na dëggu gi ci li muy wax ak ñun mais nag comme ni ma la wax rek parti du mbirum Thierno Alassane rek du mbirum Augustin Tine rek parti bi dafa am ay boroom foog ñu discuter waxtaan ñu xool ba xam est-ce que liñ leen di wax ñoom lu ñuy mën a dégg la wala ñoon ñun liñ leen di wax lu ñuy mën a dégg la comme ñoo ñuy soxla ni ñu keneen soxla mais tant que déggu leen sama ralliement bu ma tëgg bayax invité leen jàppale ne nekkuma ci loxo kenn waaw. waa xam nga bu njëkk ñu bari dañoo moom dafa juumoon dafa yaakaaroon ne man damay politiquer turu Youssou Ndour c'est vrai euh, loolu la doon gëmloo Youssou man bi may dugg Youssou dafa ma doy moom moo ma gënoon a doy ci leader yi nekk Sénégal ah, ma ñëw soutenir ko jël samay moyens aussi am occasion pour servir sama réew daf ay réalisation yoo xamante ne mosul am fi ma dëkk mais soo xoolee sax euh, RFM ak sa confrère daan na jàllale samay message mais mosoo gis image su réalisation bu jàll TFM du ci ambulance bi ñu may du ci réponse politique bi ñu doon defal Youssou Ndour ba mu amee coow ca France du ci visite yi nga xam ne ànd nañ ko ak waa fekkee ma si bool yëpp dugg ko ci kilifa jandeer yi ñu filme ñëpp du ci même Um, uh, finaalu football boo xamante ne jox nañ ko ay parrain bi ñu demee yooyu yëpp dafa tàbbi géej ak yeneen ak yeneen loolu daf doon wane na rek uh, ñun ñoo jàpp fekkee ma si boole mais fekkee ma si boole aussi jàppuñu woon Ibrahima Ndoye loolu moom moo ko doon def te wax naa ko wax naa ko ci kanamu président de la république wax naa ko ci kanamu Augustin Tine wax naa ko après ci laa ko ne nag su leen neexee ñu continuer guerre bi. su leen neexee ñu teg arme yi l'essentiel Diender moom kenn mënu fa gañe si beneen parti instant ñu toll nii te souteniruma la loolu moom lu leer la xam nañ ko d'accord na ci euh, mais signifié ne li euh, signification moom war loolu waruloon am ci ñëw Youssou Ndour bu njëkk ci la ñamoon amoon problème bi ñu amee problème ñoom réglé wuñ ko parce que dañu jàppoon ne man fans la te man dama jàpp ni instance bi Youssou Ndour am ci côté ba mu nekk man côté bi ma nekk lu toll noonu laa am fi ma nekk donte nekkin yi wuute na ma jàpp ne aussi li ma gëm mooy man lu ma téyel sama bopp kenn mënu ko foqar ñi loolu bokk na sama ngëm-ngëm bokk na ci tamit noo mënti toll damay defe ne boo taxawee ci sama kanam boo delluwul gannaaw dangay wàññeeku waaye doo yokk sama gëm-gëm la loolu laa jàpp moo tax tey comprendre na comprendre nañ ne tey ne effectivement au niveau du Diender mënuñu def rien de tout sans Thierno Moussa Sow te wax naa ko président de la république nee naa ko monsieur le président amoon nañu guerre man ak Youssou ak Ibrahima li ma bëggoon mooy gagné naa leen parce que sama objectif moo nekkoon ñu perte foofu ba ñu wan ne maa leen ko perte loon tey aussi ñu ngi ci benn voie bu retour waaye amee c'est bien su amul c'est très bien je dis aw ma si leen lu may regretter franchement. yaakaar ñàkkoon a xam lan laa mën euh, loolu moo nekkoon seen problème parce que nit ki boo ko xamul dangay wax euh, danga koy wooye beneen tur mais li jaadu woon mooy ñoom ñu xam man man maay kan. suñu xamoon man maay kan du ñu sonn pour ma jiite list bi foofu mënoon naa ko bañ a jiite mënoon naa bañ a jiite liste bi mënoon naa bañ a dem élection mooy ñu taxawoon waxoon naa ko Youssou biir këram ne ko soo ma ñaanee ma bañ a dem élection man joxoon naa Youssou jox loxo boo xamante ne loolu maradien mun na ko seere bu ne ma bàyyil politique ci instant yooyu damay bàyyi politique mais dama ne ko woon nag bu ma imposé Ibrahima Ndoye def na jéego pour jubale ma ak Ibrahima Ndoye ne ma kaay ñu dem pale nga toog yaag président ak Ibrahima Ndoye ma ne ko duma ma toog parce que Ibrahima dafa waxoon dafa juumoon ne pël ak séeréer ak joolaa du ñu jiite jandeer te loolu dafa garaaw te bi mu koy wax naar yaa ngi fi pël yaa ngi fi joolaa yaa ngi fi te jour boobu Youssou mi ngi ma jox xaalis naa gàttandu président de la république man nag pël laa pire et dur su ma nekkoon sapon sax boo nee sénégalais damay mer te man dama bëggul affaire bëddkante xeet bëgguma ko mais loolu boo ko waxee joolaa yi nga merloo leen merloo séeréer yi merloo ñëpp man su ma tourné ci jamono yooyu jàppalewuma leen ci mer boobu dem di bootu sa gannaaw dama leen a xeeb te man nag duma ma xeeb waa jàndeer loolu mooy problème bi. léegi jamono yi nii nekk gu ma ci ñoom kenn comme ni ma la wax rek. tant que tëgg ralliement amut accord bu wóor amut man duma duggati ci kër goo xamante ne du ma ko jaar ci bunt bi ah, majorité bi man ak opposition bi yëpp dama jàpp ne benn lañu parce que li tax ma ne benn lañ mooy um, politique Sénégal fi ñu dëkk ñun amul réalisation te maso te opposition bi moom trois personnes la rek man laa ko jàppee ñoo valable pour dem élection ñi ci des defuma leen sax ne amuñu pour man amuñu sax fit di taxaw ci sénégalais di leen laaj ay seen seen i seen i seen i ñu jëm waaw man am na ñoo xamante ni considéré wu ma leen man pour man opposant bi ñetti leader la ñeent voilà ñoom ñoo fi nekk ña leneen li ci des du ay parti ay wax la rek man loolu laa gëm wàllum social. Mhm. sonn nañ mhm. euh, xam. nga man dama jàpp ne su ma amee lu ma am première gannaaw yàlla sunu borom mooy euh, am am jàmm cim réew loolu grâce à armée nationale ma jàpp ne. soo tëddee nga nelaw nga yàndoor armée nationale la lépp luy sol arme jàpp ne am réew lu ñu fay def ci lu baax armée nationale ba am na ca cër ndax fii ñu toog tey jii mm, matériel bii ñu yor bu dul woon sécurité bi fi nekk armée nationale léegi nit ñëw fi foqati ko ci ñun da ngay ëpp kii doole kee ëpp la doole mais ñoom nag buy taw ñu ngi ci sunuy service ñun. buy ngelaw ñu ngi suñuy service buy naaj ñu ngi si service suñu service ma xam ne aussi xale yi bu ñu buggee xam dëgg message bi dëgg-dëgg dañuy jël dara tuddee ko armée boobu ñu xam ne ñoom kat école ba ñuy jàngee bu amee jàmm arme nationale gis nga même sàcc bi buy sàcc day nëbbutu police ak gendarmerie mais bu ko population bi tëbalee li muy njëkk xalaat mooy police ñëw nangu ko koo xamante ne ku bon kee ku baax bi yëpp yaay yaa ko njaboote te yaay garde ñëpp kooku mën gis naa ne su ma lay tuddee am di la tuddee ay classe école mooy sama yéene dalaa mën ta daj te xaw ma nu may trouver baat bi ma la mun a wax ci ni nga servir sa réew ak su ma sañoon doon ñoom pour liggéeyal suma réew ñu doon sama royukaay loolu moo tax armée nationale mu duppee ko ñaari classe yu nekk lycée national ah ok lool wax nañ ko sax njiitu réew mi keroog bi ñuy énigré bi jox naa ko caabi bi Euh, ci kanamu ñoom ministre Omar Youm ak ñeneen ah, ministre bi yore force armée Augustin Tine wax naa ko bu dee côté armée national bi gis-gis boobu laa ci am mu des côté presse bi gis nga presse bi njëriñ bi mu bi mu amal askan bi dinaa la ci jox ñetti mbir danga leen di consommer ci lu mot juróomi waxtu ci bés bi. ci wàllu journal yi nga xam ne dañ ko fixé rek di ko def ak flash yi ñuy joxe nga jël ci information xam ne da nga waroon a sol dàll dem jëli ko gis nga bu feebar tàbbee ci ci ci ci waxumam réew ci continent Afrique bi presse bi moo ñuy njëkk a wax mooy njëkk a jëlee kàddug docteur bi wax ñu feebar baa ngi tollu nangam ba pare na docteur bi soxlaa mënut a egg sa kër gune pour ñu moytu ko presse bi mooy taxaw ne la ah da ngay raxasoo eau de Javel da ngay moytu nangam da ngay moytu lekk nangam ngay daw di leen topp di leen déglu di leen déglu ba nga mën a moytu feebar boobu benn ñaareel bi mooy ñu ko yàlla mais bu déggee fenn tàkk intervention yi facilité ba yëpp presse bi moo koy def mooy yuuxu ay bi ba nit ñi ñëw fay ko te xëy na nit ñi kenn ku ne ak ni ngay yége gis nga tey même soo amee si àdduna mbaax boo mën a am ba nga mën a nekk boo bëggee nekk royukaay foog presse bi xam la moom moo lay def royukaay tey jii bu dul woon presse bi nit mun nay tojub dëkk ba mu rajaxoo armée bu ko yëg keneen du ko yëg ma gis ñuy ñaari doomi àdduna waxuma dara mais surtout presse senegal bii Ebola buñ ko bu bu demee ba taxaw fi mu taxaw tey duggul senegal pour man ministre bi jàmbaaral trop mais presse bi participer na ci su te même bétis si ngay dégg si yenn yëpp doo ci dégg journaliste yi man mun naa dem di liggéey ci benn presse dafa erreur mais les journalistes ñoom du ñu def erreur dañuy informer yematuñ ci dañuy jox ay enseignement yu leer ñooñu man sama yëg-yëg ci am ñoom moom ni ma la wax su ma mënoon damay tabax kër goo xamante ne ñoom ñoo koy moom. am naa yéene bi am naa yëg bi bañ naa ko ba samay conseiller sax ci presse lañu bokk te ma gis ci jikko ju rafet ñi ma njëkk a naw ci presse mooy ñi ma njëkk xam bokk na ci tuuti sëy bu nekkoon Sud FM Ibrahima Benjamin Diagne Aliou njaay bi nekkoon directeur groupe Futur Média Pape Ngagne Ndiaye Pape Alé Niang ma xool leen ñuy def liggéey bu xam bu méttee journaliste dañuy ñëw taxaw ne du ci dal du ci dal du ci dal ba population bi xam ne bu ci dalee ñu gaañu ñu ñëw génn bu neexee tamit bu dee sport la fi ngay toog ñu jox la làmb sa xol di sedd ñu jox la football sa xol di sedd nga am sa bésu sëriñ mënoo dem ñu jox la ko ba nga nekk mel ne yaa ngi ci biir këru sëriñ bi léeg-léeg sax nga dégg fitna boo xam ne da bëggoon bu doon yow la nii nga ciy waxee presse bi dinañu dem sampal la laaj ba koo ko waxee liy fay fitna ñii kay kenn amul seen fay loolu moo tax ma tuddee leen ay classe. léegi ci mhm. eh, tey li ma gën a métti mooy ma te mu jafe ma trop mooy commune bi ni mu toll amul poste police. amul brigade gendarmerie si beneen commune lañ dépendre kenn côté boobu bokk nañ samay mébét tamit jàndar ni mu toll mu am marché boo xamante ne dina nekk marché moom luy nit di bëgg jënd nga jënd si ko jàndar parce que fi mu féete àttan na ko bokk na suma mébét tamit nan laay def ba jàndar am stade boo xamante ne. bu ETICS bu Mboro bëggee recevoir foofu recevoir fa bu fa raay bëggee recevoir recevoir fa ay ASC yi fa nekk mun a màgg ñu am fu ñu fubale fu ñu entraîner ba ñu am talent yi ñuy gis fu ne bokk na ci suma mébét tamit ah fexe ba Diender ci côté njàng situation bi ñuy jàngee baaxul te d'accord nañ ne am njàng mooy yor réew école yi doyul dala doyul. bokk na ci samay mébét nan la ñuy def ba doomu jàndeer mën li muy bay mu am condition yu baax yu mu ko bayee ba pare di ko jaayee ci biir jàndeer ba tax benn ndóol du fa dugg ba li ñu am muy suuf si ñu war a teddee ñu koy jaay kenn loolu bokk na ci mébét yoo xamante ne vraiment sama xel mi ngi ci suba ngoon dañu nekk ci benn projet maak euh, El Hadj Baba ak sunu sœur Abi Ndour na ci am nga fii Sénégal boo dee xool ñëpp da ngay dégg ci woykat yeeg ñëpp ñu naan tukkulóor tukkulóor te man bi ma defee ñetti fuuta yi nekk fii gën fay jege bi ñu xoolee lan mooy tukkulóor dafa jaaxal ñëpp képp kuy làkk pël rek loolu jaaxal na la ma waxtaan ci nag ak euh, El Hadj Baba am liggéey boo xam maa ko bind mu apprécier ko rafet ko ba nangoo nekk sax président bi ñu ànd ceeg Abu Jubaade ànd ceeg Yëreel ñu war a fexe nag ah dajale ñetti fuuta yëpp daa di génne pot moom parce que dem na ba diggante kal diggante séeréer ak pël ak yooyu da ngay gis koo xamante ne boo waxee du lay wax dalay wax ne noo pël du suma suma kal man man tukkulóor mooy suma kal te ñun ñi koy làkk ñu bokk làkk bi gisu mënuñu identifier loolu du du fenn loolu nag gannaaw bi tamit mooy li ngeen gis fii ci Thiès corante bi baykat yi ak sàmmkat yi ba xale yi yamatuñ ci baykat ak sàmmkat mais dañuy dugg ci biir ñii sax di leen coro cor ak gaañ ma am loo xamante ne bindoon nañ ko mot na ñeenti at tey jii ma war ko réaliser maag Baba Maal fi ne ni incha allah sunu première sorti ci grand théâtral ci programme am bi ci lay njëkk a lancé kii bi bu ñu fa jógee dinañ dem Sinja man ak moom def benn programme ak Yero le 14 euh, novembre loolu nag projet la boo xamante ne dama ciy tàllal képp kuy sénégalais nga xam ne yaa ngi consommé ci wàllu càmm walla mbay nga gis reyante beeg gaañante bi ci nekk si baykat yeeg sàmmkat yi maa ngi la ciy tàllal loxo ñu fexe sensibiliser xale yi ba ñu bàyyi loolu ñu teg jaas yi ci suuf teg ratu yi ci suuf ñu daa di fexe Sénégal doon dëkk boo xam ne ndaw ñi lépp luy yëkkati ngànnaay ndaw waru ko def parce que loolu day indi fitna yi ngay gis yëpp mu ngi déparé ci yooyu xale bu papaam ñàkk waajur ci kii xale bu ñàkk waajuram ci fitna kooku ëllëg mun na yomb naa dugal ci fitna parce que day avancé wu man ma gis na nag ah loolu dañ ko war a dindi ma ciy dox ah di ci tàllal ñëpp loxo képp ko xamante ne bëgg nga ànd ak man ci mission boobu maa ngi lay tàllal loxo ak noo ko bëggee muy sa xel muy sa xalaat muy lu munti doon ñu ngi lay dalal incha allah taala ñu ànd ceeg sunu sœur ak sunu frère Baba Mal ak euh, abu Djubade ak Yerel ñu ànd ak ñoom di tàllal loxo yeneen artistes yi ak lutteurs yi. Mhm. mooy maa ngi jërëjëfal ñëpp di nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak surtout waa Jandeer surtout waa Sénégal di leen xamal ne suñu juumee nit la du sunu jubluwaay ah lu ciy jub tamit yàlla sunu borom jëf